billaahi te bis boo fi taxawee di dend ay saaga ju duma la yow réewoo sax gars yi vidéo bu gàtt rek ki may wat rek ki may waxal sax jëlulu tontu wallaay mais damaa gis mu song sama yaay Mimi Touré moom Assane juuf may wax na yaay Mimi Touré moom xam naa amul ot jotoog Mimi ñu bari sax du leen lijjanti waxuma laa dof na ma fi sax baal waaw ku tux sa ba réer wadd songu Mimi koo xam ne képp ku defa defal rek taat wu ñuul nga koy mujj wan moy dof bu melni ne Assane Diouf dof nag ta wessu dof Assane Diouf mi mbollem ko massa saga nday rek mbaxar yapuna na la mboolem ko massa khas rek mbaxar yapuna na la muy Youssou Ndour ak ku ne ku ne rek bu demee ba nga dem di bokk ci coalition bu Macky Sall ka bok nga xamné yow do nitu dara waye nag gis nga yamba mom señ bi lu mën ta def lo doomu adama am yamba bo bo toxelo upp ñi nga gëna bëgg mag mu naga yam ñi nga gën a bëgg ngay gën a bañ waaw mais eh, Assane Diouf da nga tuuti lool ci wax mi mi mi di tontu da nga cee tuuti gisuma kenn kenn kenn kenn ci opposition bi kuy naaw la eh, Mimi Touré kuy naaw leem Mimi Touré buy wax seen baay Amadou Ba mi ngembu ñi leen ngembu la am ko lu muy wax ak moom seen baay Amadou Ba te bi ko Amadou Ba songee barki démb eh, déedéet nu mu sax Mansour ci suuf la la jaaxaan moom Mansour Faye mi mi góor góor góor dëgg góor dëgg ko song te du ci génn waxuma laag nag mbaxaar kat bu mel ne Assane Diouf dof bu mel ne Assane Diouf kat bu mel ne Assane Diouf Assane sangu sax tolu ko ndax xol bu bon de ci boole sangu koo xas bu subaa nga dem ca kata des ñun ñooy Sénégal yow lu la def Sénégal yow bañ nga ko ñaara baat yow na yee yow yow sa li la gëna metti ci aduna moy amerique gi nga doon do do fa dellu bala américain yi ne jak xol la ngay nit lu lañ xamne dox nga keuf la sanni ci rew mi mo ne say moroom nga ci rew mu ñu amati kay tok mo ne ñanga jiñ ne ñoo la ko tek de tay ji ñom nga àndal mo tax dox nga mimi du sa moroomum nday du sa moroomum bay baal mimi asam juuf tak dem ci goor ñi la togn léegi nga doon góor jigéen de yow ña la tooñ doo dem ci ñoom du danga ne woon Macky tooñ loo daan wax Macky Sall yow ba ma jàkkaarloo yow tey surga Macky Sall nga sa dund gi dee ko gën asan hmm? waaye dimbaleel nit ñu waay yow say wax safoo kenn te fu ñu waxee dañu dékk la micro yi ngay ngal-ngali dee ci boolee sangu ngir yàlla dee ci boolee sangu cim nit koo xay na xamoo taraanga benn yoon ñii nga àndal sax bëggoo bat Barthélémy Dias ñi ngay jàppal tànk li tax nga di ko jàppal tànk xam nañ ko daa san ca weer wala ca salaire bala ca salaire bala ca salaire bala loo liggéey asan looy liggéey mais looy liggéey ban lay fay salaire xam nañ de mais nag iñaane wuñ la ko waaye dañoo bëgg nga yaru nag bientôt yàggul dara yàggul dara di nga ànd ak Barthélémy Dias wàcc ci suuf billaahi te bis boo fi taxawee di dend nit ay saaga ju duma la yow